jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu dellu am mbégte euh, nuyu leen bu baax a baax dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi muy euh, am samdi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou moom Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité Moussa Boye moom nag mu bokk ci cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci partie bi nga xam ne mooy PRP. PRP euh, di parti républicain euh, pour le progrès diisoo ak euh, askan wi moom muy milité fi nga xam ne moom mooy ci commune bu Thiadiaye département bu Mbour Moussa Boye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre di profiter ci occasion bi nuyu l'ensemble des de vos internautes. Mhm. nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre yëpp ci. rajo bi rajo bi ak ci seen support digitaux yëpp. di euh, ñaan yàlla émission bi ñu dugg ci jaam génn ci jaam te lépp lañ fi wax muy doon jëriñu Sénégal jëriñu askan bi yëpp. Moussa booy yow nga bokk ci euh, parti bi di PRP euh, parti républicain pour le progrès diisoo ak askan wi. yow la ñu invité tey seen leader di Déthié Fall ñu koy nuyuwaale bu baax a baax li ñuy waxtaane nag tey dinañu wax ci actualité bi ndax actualité bi xam ngeen ne tey mooy jëm ci Ousmane Sonko njiitu Pastef bi nga xam ne euh, wuy ji woon na doyen des juges ak la nga xam ne moo fa jot a jib ni information ak ñi nga xam ne tudd na leen ci complot loolu dinañu ci daal di euh, dikk mais Moussa Boye première question mooy yow euh, Déthié Fall dafa nekkoon ci parti réew mi ba mu fa jugee mu taxawal PRP yow da nga bokkoon ci parti réew mi mu taxawal PRP nga ñëw bokk ci wala bi ngay bokk ci PRP yow booba bokkoon ci benn parti politique. Euh, bon man euh, moom euh, on a été au niveau du PRP euh, début bi euh, je dirais que donc euh, en 2014 laa intégré parti réew mi ci même la commencé politique en 2014 et la on était au parti mi man ak moom mais bu Idrissa Seck jëlee décision. bàyyi la population trahir la population dem ànd ak Macky Sall boobu la Déthié Fall aussi jël décision rester au niveau au, au côté de la population. opposition exactement donc euh, non au côté de la population. population parce que exactement parce que c'est très important euh, parce que population bi dafa wóolu woon idri Seck ci élection 2019 yi. waaw jox ko presque un million de voix. mu dem ba ci biir. mu bàyyi population boobu noonu dem ànd ak Macky Sall et que cette population n'était pas avec Macky Sall donc bu mu bàyyi population bi dem si Macky Sall boobu la Déthié Fall aussi jël décision rester aux côté de la population après boobu noonu un an après laa ko rejoindre. da nga jàpp ne da nga jàpp ne Idriss Seck dafa trahir askan mais même bu ma ko waxul sax loolu la population bi yëpp di wax génnal nga def le tour euh, des ruelles nga laajte. cette population dafa jàpp ne Idrissa Seck da leen a trahir parce que en réalité un million de personne ne la ànduñu ak Macky Sall yow lañ àndal yow lañ bëgg a def président de la République nga négocier si loo xamante ni ñoom fekkewuñ ko yëguñu ko nga négocier un an d'après ni nga ko waxee ba un bon jour nga dem ànd ak ki nga ne woon sa sa vision ne dépasse même pas ànd ak ki nga xamante ni depuis yaa ngi wax ni kii mënul mhm. mu ngi jéem lu mu mën yëpp mais lu mu mën moo bëriwul nga dem ànd ak moom jàpp ne moom moo mën kon loolu noonu je pense bien que c'est une trahison mhm. que population Sénégal aussi loolu la gis si moom mais explication yi mu joxee woon nag ba muy dem di ko fekki mais ces explications c'est c'était juste pour euh, euh, dalal xelam mais population sénégalaise boo leen laajee dans leur majorité ñoom gëmuñu lool bu bu mais waaw gëmuñu loolu. Mhm. d'accord mais Moussa Boye PRP euh, est-ce que PRP créé wu leen ko pour créer parti politique wala ndax créé leen ko euh, ngir mer wala ngir faj mer moo tax ngeen créé PRP. non boo xamee la président Déthié Fall nga xam ne nekkul si loolu président Déthié Fall c'est un démocrate c'est un homme de principe donc principe moo taxoon mu nekk au niveau du réew mi. bu mu demee ba ay principe am waroo ak principe parti réew mi dafa jóge dem créer son parti nekk di liggéey si am donc ay affaire u yooyu taxul président Déthié Fall jóg mais c' est un démocrate c' est un homme de principe looloo tax mu génn te boobu bi léegi mu ngi liggéey dans le silence di massifier son parti au niveau du Sénégal au niveau des 557 commune du Sénégal donc moom nekkul say affaire u yooyu. mais est-ce que euh, Euh, dina nekk euh, jàpp ngeen ne tey parti politique la boo xam ne euh, da ngeen koo créer yéen pour accéder au pouvoir wala da ngeen koo créer pour langaameetu pour gunge lan mooy cëslaayu création parti bi. bon boo xamee le président Déthié Fall nga xam ne def na dix-sept ans de compagnonnage avec le président Idrissa Seck dem ba doon le numéro du. Euh, du parti réew mi jóge foofu créer son parti donc. pour man exactement mais mais pour man Déthié Fall ak nu ma ko xamee dépassé na doon numéro 2 dépassé na langaamu si nit moom bu créer parti c'est pour partir aux élections te incha allah 2024 soreetul Sénégal yëpp cest à et que ñun on a créé parti pour participer ces élections yi di élection présidentielle yu ñëw parce que nag euh, la vocation de créer un parti politique c'est juste pour euh, jiite réew mi. waaw mais mais mais Moussa Boye euh, yow nga bokk ci cadre PRP yi créé ngeen seen parti politique wax nga fi sànq Déthié Fall euh, am ngeen ay cadre am ngeen ay jeunes am ngeen ay kuréel yu jiite jigéen ñi mais est-ce que réellement diggante bi ngeen fi créé parti bi ak léegi ak élection présidentielle 2024 yi incha allah est-ce que pare ngeen politiquement pour bokk ci. non boo xoolee euh, la euh, si parti bi nu muy doxee actuellement nga xool le volume d'activité buy am si parti bi au niveau du Sénégal et de la diaspora nga xam ne Sénégal booy xool parti parti yu nekk Sénégal yépp ñun ñoo leen ëpp volume d'activité chaque semaine chaque week-end dans presque plusieurs communes da ngay gis ne ñoom ñu ngi. def seen campagne kaay bokk bi nga xamante ni waa Dakar parti parti PRP Dakar ñoo ko lancé depuis presque deux à trois mois euh, nga gis aussi li Déthié Fall di def muy sa tournée internationale commencé woon na ko marok dem Belgique euh, problème mu Ousmane Sonko tax mu écourté euh, loolu noonu ñëw Sénégal pour jàppale son frère et ami Ousmane Sonko gis nga ko démb annoncé na ne day delluwaat France continuer sa tournée internationale te bu fa jógee day ñëwaat Sénégal pour def sa tournée nationale fëpp fu militant nekk fépp fu commune nekk au Sénégal dina dem saavantoog ñoom massifier son parti implanter ko au niveau du Sénégal donc loolu noonu je pense bien que di si quelques mois ou bien d'ici quelques semaines les Sénégalais sauront que nous nous sommes pour l' élection présidentielle de 2024. waaw mais pare ngeen pour dem man ngeen a pare pour dem man ngeen a am euh, parrainage man ngeen a am caution mais est ce que vraiment PRP bii euh, est ce que doole ji nag ma ngi fi Moussa Boye pour pour pour dem gagner élection wala da ngeen na dem pour jël troisième wala pour dem pour bokk. non ñun participer wuñu si ay élection pour participer seulement on participe aux élections pour gagner bu ñu jëlee taarix. Macky Sall 2008 la créé son parti 2012 il devient président de la République lan moo ko may mooy liggéeyu terrain bu mu créé partem def na presque deux à trois fois lu tour du Sénégal et en 2012 il gagne les élections nga xool la trajectoire du président Déthié Fall nga xam ne actuellement moom un an six mois kese la partem am il a eu à faire deux fois lu tour du Sénégal ça c'est très important parce que au niveau des élections locales yi nii passé defoon na la tour du Sénégal avec la coalition Yewwi Askan Wi élection législative yi passé ñëpp gis nañ na aussi il a fait le tour du Sénégal avec le président Sonko donc ce qui lui reste c'est quoi c'est de venir faire un autre tour du Sénégal bu paree sa tournée internationale day ñëw def tour du Sénégal bu ko defee il aura aussi largement le temps non ça c'est loolu stratégie la c'est sa stratégie politique peut-être moom foofu la jàpp ne foofu la war mais mais Déthié Fall est que euh, homme du terrain la est-ce que politicien la boo xam ne bu mën a wàcc ci mbedd mi la ndax politiciens yi dañoo bëri ay façon mën na nekk ab ab technicien mën na nekk boroom xalaat mais est-ce que koo xam ne tey mën na sillonner Sénégal jaar ci rue yi comme ni Ousmane Sonko di def nii est-ce que Déthié genre boobu la. mais loolu démontré na ko depuis bu mu créé parti ba léegi je t'ai dit que def na deux fois le tour du Sénégal. non la mu ngi tournée internationale. waaw mais tournée coalition yooyu askan wi kenn mënu ko kenn mënu foofu. non non juste pour te dire que lool noonu bu paree tournée internationale am bu paree day ñëw au Sénégal def lu tournée national te boobu noonu dina dugg je te dina dugg si presque douze mille villages yu nekk au Sénégal douze mille à treize mille villages yu nekk dina dugg si cinq cent cinquante sept communes yi dina dugg aussi si département yi yëpp fépp fu militant am nekk dina fa dugg saafantoog ñoom waxtaan ak ñoom duggu seen kër yi massifier son parti implanter son parti comme nu mu koy defee actuellement pour que d'ici 2024 ñu doon la principale force politique ici au Sénégal si loolu lañu nekk si dynamique boobu lañ nekk et on est extrêmement déterminé à accéder à ça incha allah. Euh, jërëjëf euh, Moussa Boye yow nga bokk ci euh, cadre yi bokk ci parti bi di PRP danañu si laa di dellu si ci seen tournée yooyu ak structuration parti bi léegi ñu ñëw ci actualité dafa am seen benn naataango Ousmane Sonko amalante ak yoon demoon na mbir mi nag yàgg na. Euh, doyen des juges maa ngi koy doog di euh, convoqué ngir déglu ko ci ak euh, ci ak xóotal nan nga ko jàngatee. non man je dirais que je suis vraiment désolé je suis désolé parce que bu ñu demee ba le débat politique au Sénégal wàcc ba toll fu ñu toll nii nga ak Sénégal fu mu toll ci démocratie fu mu toll ci ay nit ñu bari xam-xam. ñu dem ba Sénégal depuis presque deux mille vingt et un ba léegi ñuy wax si loo xam ne amul bopp amul genn loo xam ne complot kese la dara du ci dëgg loolu noonu je vraiment désolé on pouvait parler de choses yoo xam ne ñoo gën a am importance que lu ñuy wax nii mais nag lii nii du lu bees au Sénégal boo xoolee bu ñu jëlee taarixu Sénégal rek entre Senghor ak Mamadou Dia nii la demee woon Senghor dafa utiliser woon justice pour taxer Mamadou Dia de ne daa bëgg a def coup d'état mu tëj ko déporté ko Kédougou ba mu perte ci ay bëtam Abdou Diouf aussi tëj na plusieurs fois euh, Ablaye Wade parce que dafa jàppoon ne menace la woon ci moom Ablaye Wade bu mu ñëwee ba aussi essayé na ko ci Idrissa Seck en 2004 jàllul loolu sax moo tax mu am deuxième mandat en 2007 essayé ko aussi si Macky Sall mi nga xam ne daa commencé déclenché affaire rek mu daw dem Touba laqatu ji jooy ne bëggul ñu tëj ko te xam nga Ablaye wat moom ñëpp la doon déglu te c'est un démocrate mu bàyyi ko mu bokk si élection 2012 ba mu gagné. Macky Sall aussi bu mu ñëwee puisque lui il pas un démocrate du déglu kenn faalewul kenn def na ko si Karim Wade réussir ko. def ko ci xalifa Sall réussir ko d'ailleurs looloo tax mu gagné élection présidentielle u 2019 yi parce que Khalifa Sall ak Karim bu ñu bokkoon du ma du gagné naturellement Idrissa Seck allait être le président de la République en 2019 ñëwaat 2024 aussi mu bëgg koo def Ousmane Sonko mais na xam ne moom mën na def ay pexem mën na lal ay pexem mais yàlla aussi am na ay pexem am na am na lu muy naan lu may tuddee son maatay yàlla maatayam la am quoi. donc bu jàppee ne lu mu réussiroon ak Karim ak euh, Khalifa Sall dina ko réussir ak euh, Ousmane Sonko mu ngi nax boppam. parce que sénégalais yi dañoo doyal si Macky Sall di leen di tànnal président actuellement Macky dafa bëgg a wu au peuple sénégalais pour ne leen 2024 entre kii ak kii ak kii ngeen di tànn. mais ki nga xamante nii mooy Ousmane Sonko du ci bokk te man damay utiliser justice pour génne ko ci comme nu ma ko defee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu nag peuple bi du ci d'accord je dirais même Afrique sax du ci d'accord parce que fépp si àdduna bi ñu ngi gis des cris d'indignation des cris de soutien au président Ousmane Sonko mais léegi li tax Macky Sall réussir ko taxawaay bu Ousmane Sonko wane la Euh, par rapport Karim Wade Khalifa Sall dañ ne woon nañu bàyyi justice bi def liggéeyam Ousmane Sonko ne dossier politique la daf ci def politique wala lan nga jàpp ne moo tax Macky Sall réussir ko bu dee li nga wax mooy mooy la am. non xam nga ab mbir am na fu muy toll. Euh, ay analyse da ci euh, da ci du ci amati doole foofu ab mbir fu muy toll rek je pense bien que dañ koy dugal ci cadre yàlla. yàlla moo namatul Macky Sall toroxal ay nit yàlla moo namatul Macky Sall génne ay nit pour euh, gagner ay élections man loolu laa ko jàpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko bien sûr Ousmane Sonko aussi position bu responsable la yor parce que depuis le début jusqu'à présent xam na ne lii nii c'est un complot que bu yolomalee rek Macky Sall dina ko tëj te loolu noonu euh, day briser le rêve de plusieurs millions de Sénégalais loolu noonu moo tax depuis le début jusqu'à présent mu bañ ne lépp dañ koy teg ci yoon bañu la day wuyu ji de mais dafa bañ ne lépp dañ koy teg ci yoon loo tax dès le début bu ko bëggee patam patami tëj ko da leen a ne non je suis un député da ngeen di dindi sama immunité parlementaire ba pare buñ ko dindee mu dem uyu ji ñu tëj ko quelques jours je pense bien six jours bàyyi ko def ko benn contrôle judiciaire bàyyi ko ñu ñëwaat deux mille vingt et un jusqu'à présent ñu doog am fit ne dañ koy convoqué buñ ko convoqué aussi gis nga nu mu fa demee dem na ñu posé ko trois questions il a répondu à ces questions et il est retourné chez lui annoncé aussi ne day continuer son nemmeeku tour donc lii nii yëpp ay caaxaan la complot la nañ ko bàyyi ngir yàlla Macky Sall na ko bàyyi décerné ko benn non-lieu total ñu génn ci wax bii nii concentré wu sur li nga xam ne moom la sénégalais yi di soxla muy les questions économique nan la ñuy def ba Sénégal bi nga xam ne presque ci ndóol la ñuy dund nan la ñuy def ba ndóol bii nii ñu dindi ko fi. Euh, Ousmane Sonko dafa wax ne dafa jébbal doyen des juges benn. Euh, enquête interne boo xam ne Jean Baptiste Tine mi jiite woon gendarmerie nationale moo ko def la woon ndax bi problème bi amee mbiri capitaine Touré Jean Baptiste dafa santaane woon ab euh, ab enquête interne mais bi mu santaanee enquête interne Sonko ne na ci biir enquête interne bi euh, procureur Euh, dañoo bind ne moom moo doon sant commandant nga mi jiite woon section de recherche pour mu indi modification ci PV yi maanaam dindi lépp luy setal Ousmane Sonko yokk si loo xam ne dafay taqal Ousmane Sonko ba mu ne daf koy porter plainte loolu est-ce que gën leeral tamit ne mbir mi complot la. non mbir mi depuis le début jusqu'à présent képp koo xamante ne yàlla may na la tuuti xel war nga xam ne lii nii complot la. mu ngi commencé si contradiction yi nga xamante ne moo amoon ci déclaration Adji nga xam ne boo ko dégloo rek sa yaram day daw da nga koy yërëm xam ne kii dañ koy defloo di ko wax looloo xamante nii yàlla xam na ne dara amu ci ñu ñëwaat comme yàlla moom dëgg rek lay àndal rapport rapport de l'enquête interne au niveau de la gendarmerie génn bu mu génnee wone ne euh, capitaine euh, Omar Omar Touré moom deful dara dañ ko tooñ rajee ko wone ne aussi liñ doon wax ni yëpp si ay PV yu kenn xamul lépp dara amu ci lépp ay caaxaan la wane la vérité au grand soir. Mhm. donc actuellement je pense bien que justice ak Macky Sall je dirais que Macky Sall amatul benn ussi pour tëj Ousmane Sonko ou bien yàq ay kayitam bi du mën a bokk ci élection 2024 yi lu ko dese lenn kese la na gëm yàlla. bàyyi Ousmane Sonko bàyyi la problème de Sweet boote ñu jàll si leneen. loolu noonu non non non mais euh, Moussa Boye man damaa jàpp ne am na loo xam ne tey euh, dafa am rapport médical boo xamante ni tey euh, am na lu mu wane ñu bëri jàppoon ne enquête bi waroon na man a foofu mais est-ce que du yomb trop li nga wax ñu ne ñu jekk-jekk def Ousmane Sonko non lieu yemale ko foofu tey bu dee tey dafa am ñu ko complot te rapport. Euh, enquête interne gendarmerie euh, montre wane loolu il faut que ñu xam ne Sénégal ay nit aussi dañoo dee ci lii ñu bari ñàkk ci seen alal euh, te Ousmane Sonko ne dina porte ji Bassirou Gueye ci ci kanam ci dina ko plainte ci ci ci ci kanam yoon est-ce que du yomb trop ñu jekk-jekk nëpp nëppal mbir mi bàyyi ak sénégal yi si faatu no non man damay wax si question wu viol bi dossier wu viol bi ce dossier c'est dossier vide qui doit être vidé le plus rapidement possible mais concernant les quatorze personnes yi nga xam ne ñoo deewoon ci événement mars yi lool noonu il faudra que la lumière soit faite parce que ñoom nag duñu ay ginaar duñu ay xar duñu ay nag ay nit lañ ay nit ñoo xam ne ay borom gàndaay ñoo leen dóor ay bal am na image yoo xamante nii wone na ko donc loolu noonu il faudra que enquête am ñu xam carrément ñan ñoo ko def ñu tëj leen xool les commanditaires aussi ñu sanctionné leen pour que la mémoire de ces quatorze personnes mën a euh, ñu mën a noppalu ci jàmm. Mhm. donc yow yow yow ko Ousmane tey euh, euh, buñ ko jéemoon a gàllankoor tey naka doo bokk ci élection ndax jàpp nga ne dina nekk loo xam ne jàmmi réew mi lay doon. non Macky Sall li ngay wax nii Macky Sall xalaatu ko sax même procès bu mu doon def nii sax je pense bien que à un certain moment dañ ko bëggoon def procès moral. parce que boo xoolee tournure bu mu jël léegi ñu dem le doyen des juges di ko laajte est ce que seq nga ak Adji Sarr quelque chose ou pas est ce que mën ngaa def test ADN boo xoolee loolu rek nga xam ne ñii wóor na leen ne amuñu benn élément pour tëj ko instant yi procès moral lañ bëgg a def yàq deram si population Sénégal jusqu'à ce que population Sénégal du ko votel donc Macky Sall si boppam xalaat na ne xalaatul sa tëj Ousmane Sonko parce que bu ko tëjee nu ko Ousmane Sonko waxee lu ëpp les événement de mars dina fi amaat te Macky Sall moo la ko gën a xam. donc xalaatu la tëj Ousmane Sonko. mais yàq deram la bëgg toroxal ko dindi suturaam te Ousmane Sonko aussi c'est un père de famille papa la. dafa jiite ay nit. plus de un million de personnes presque ànd ak moom te instant yi je pense bien que war naa mun a yokku donc kooku noonu Euh, booy jëflanteeg moom da dangay jëflanteeg moom si dëgg ak si dignité mais nekk fi bëgg ko toroxal yàq deram non sa c'est indigne pour le Sénégal quand même. Euh, gis nañ ñu daal di euh, jàpp ay garde corps am moom sax nee na loolu loolu enlèvement la loolu moom loolu la ko gisee. exactement enlèvement la parce que nu ko Ousmane Sonko waxee looloo am nee na ñi nga xam ne moom lañ ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp. mooy ñi nga xam ne ñoo ko génn a jege mooy sa garde rapprochée wóor na ko ne événement cikki yi bu muy am boobu noonu ñooñu ñu ngi si wetam parce que du ñu mos a jóge si moom man je peux l'attester parce que tase naa ak moom à Sindia Sindia fekk ñuy def suñu campagne de campagne kaay bokk bi nga xam ne moom lañ lancé au niveau du PRP mu gis ñu bu mu gisee dafa arrêté son cortége arrêté ko wàcc ñëw ba si ñun nuyu ñu Euh, wan ñu affection bi nga xam ne moom la am si Déthié Fall waxtaan ak ñun dem mais boobu noonu mu ngi ànd ak ay ay garde yu bëri mais garde rapproché soriwu ko ñeneen ñi peut-être ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk si euh, à la périphérie ñooy noonu ñooy ñoo mën a wàcc di def yenn dégâts yi mais pas cette cette garde rapproché donc enlèvement la tentative Euh, affaiblir ko la pour que moom du mën a tee def son amee ko tour mais dañuy sonal seen bopp. nañ bàyyi ñoo ñu ñëw continuer ak Ousmane Sonko. d'accord gisoon nañ fi tamit euh, ñu génn takk der yu bëree baree bëri euh, ci Sénégal mel na Ousmane Sonko ñu convoqué ko mais gis nañ gendarme yi ñu génn policiers yi annulé audience yi xale yi jàngiwuñu ñu bëree baree bëri tiit mel ni dëkk bi guerre moo fi am. image boobu ndax jekk rafet na ci Sénégal. bon je dirais que image bu ñaaw la mais nag euh, dafa tolloog ki nga xam ne moom lañ doon convoqué muy le président Ousmane Sonko. il n'est pas n'importe qui dans ce pays et que gars yi événement mars yi da leen a téye ba léegi dañoo ragal Ousmane Sonko alias euh, Oscar Sierra mm-hmm. donc dañ ko ragal ragal boo xam ne. buñ koy convoqué ñoom seen fit hmm. du ñu amati fit en réalité parce que boo demee euh, gendarmerie police dem bi ñi nga xamante ni ñi ñoom lañuy formé former à Fatick nga jëli leen jël ki euh, sapeur pompier tout ça pour tout simplement une audition donc nga xam ne kon ñii nii dañoo ragal Ousmane Sonko mais ñoo yey ragal ko nag hmm. parce nga xam ne defu leen dara ñu koy sonal complot pour tëj ko mu wóor leen ne kii nii bu ñu defee défaillance bu ndaw lu amoon mars dina amaat Macky Sall si boppam daw génn Sénégal comme ni mu ko doon defee donc c'est normal que ñoom ñu bancariser Sénégal. d'accord jërëjëf euh, mussa booy euh, yow nga bokk ci cadre PRP euh, yi parti républicain pour le gré pour le progrès diisoo ak askan wi yéen coalition Yewwi askan wi ci nga bokk PRP Déthié yéen bi ngeen doog taxawal euh, coalition bi élection locale ngeen waxoon ne moom ngeen ànd ak élection législative bu ngeen demee élection présidentielle ke ku bëgg a dem euh, dem après euh, ku ku dem ku génn deuxième tour bu dee am na bokk si yéen ngeen dem ngeen ngeen jàppale ko logique boobu si ngeen nekk ba léegi. exactement logique boobu lañ nekk te duñ ci mos a jóge parce que koo xam Déthié Fall xam ne nitu principe la nitu kàddu la et ku gis aussi leader yi nga xam ne ñoo composé la coalition Yewwi Askan bi nga xam ne c'est des personnes de valeur c'est des personnes de principe donc loolu nga xam ne ñoom ñoo toogoon signé ko pour que élection législative bi bu paasee ku nekk dem liggéeyali sa bopp élection présidentielle képp koo xamante ni jiitu nga ci ñoom ñoom ñëpp ñu def bloc jàppale la si loolu lañ nekk te duñ ci mës a jóge donc euh, en réalité duñ ci mos a jóge mais est-ce que yéen euh, dément dégg ñu baree bari wax ne ñoom euh, candidat lañ dégg naa Ousmane Sonko ne euh, candidat la Malick Gakou dégg naa mu ne candidat la euh, docteur Abdourahmane Diouf euh, nee na candidat la maître Abdoulaye Tine nee na candidat la mais Déthié Fall ba léegi dégg guñ ko mu ne candidat la. exactement donc ku nekk ak sa calendrier Déthié Fall dafa am calendrier bu muy topp donc ñooy noonu nga xam ne déclaré nañ seen candidature si seen dëgg lañ nekk mais nous au niveau du PRP aussi dañoo am Euh, calendrier bu ñu établir te loolu noonu incha allah bu jotee je ne dirais pas que ci Fall mooy présente sa candidature mais sénégalais yi ñooy réclamer sa candidature parce que nag il est en train de fair un travail extraordinaire au Sénégal il est en train de faire un travail de maillage dans tous les communes dans tous les villages du Sénégal donc à un certain moment ñooy noonu ñoo koy exiger pour que mu doon candidat mais Ça ne sera pas à lui de dire que je suis le candidat et après, si tu es un candidat et après. donc c'est à la population du Sénégal de lui dire que tu vas te présenter te si loolu lañ nekk si siège boobu lañu nekk ñu ngi si ay action de terrain mais incha allah d'ici peu de temps sénégalais yëpp dinañ gis lu ñuy liggéey incha allah. Euh, ñi nga xam ne ñooy waa euh, boor bële waa Benno Bokk Yaakaar ñoom am na ñu bari ñoo ngi laam-laamee ne euh, ñetteelu candidature Macky Sall ñeneen ci opposition bi nag. Euh, nee nañu ko du fi amee ndax lu ñu nangulutoon Ablaye wàdd mënuñu la ko nangul beneen bi yow yaa fi woon ne bii mooy 2019 euh, bu ñu la falee mooy nekk sa deuxième sa dernier mandat tey amuñu ko jege ñoo xam ne ñoo ngi wax ne moom dana nekk euh, candidat yow lan moo ci sa xalaat. je dirais que bu ñu demee nag ba toll fii nii sur le débat politique le débat public bon day métti si ñun ñi nga xamante ni deux mille deux mille douze fii lañ nekkoon. bien vrai que fekkoon nañu nekk ay xale yu ndaw doog a am bag mais xamoon nañ aussi li nga xam ne moo doon am au Sénégal parce que 2012 on se souvient il y avait presque onze morts onze morts yooyu lu ko waraloon mooy la troisième candidature du président euh, Ablaye Wade et que troisième candidature boobu Macky Sall lu ci xeex peut-être man gisuma keneen ku ko ci xeex dem na ba gàddu ab mat laa am ne day dem fanaani obélisque pour lutter contre la troisième candidature de Macky de Ablaye Wade mu ñëw gagné en 2012 def référendum référendum boo xam ne moom moo sant les constitutionnalistes ñu bloqué euh, le nombre de mandats du président de la République dogal ci ay clauses yoo xam ne euh, des clauses intangibles qui montrent que moom mënatul a présenté pour une troisième candidature mu bind ko ci livre am boo xam ne bon j'ai eu tout le mal de le lire mais malheureusement je l'ai lu bon peut-être c'est le président de la république moo tax ma lire ko mais si c'était pas ça je ne vais pas donc moom mu bind ne il est à son second et dernier mandat donc second ñun ñi nga xam ne peut-être yàlla may nañu tuuti ci français xam nañ lan mooy second parce que second bu ñëwee moom troisième do amati donc moom wone na ne moom mu ngi ci son deuxième et dernier mandat constitution aussi tere ko ko ne ko nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs moom je pense bien que moo alimenté le débat parce que moo ñëw ba 2020 mu ne man instant yi sur cette question je ne je réponds par ni oui ni non waxuma waaw waxuma déet ñu dem ba en certain moment ces souteneurs commencent à dire que nous nous partons vers un deuxième quinquennat waxtuñu deuxième mandat mais deuxième quinquennat te loolu noonu Macky Sall stoppé wu leen boobu ba léegi ñu ngi ci nekk di wax di ko wax donc loolu noonu day wane ne moom personnellement moo leen di yónni et que personnellement aussi moom am na des ambitions pour sa présenter à une troisième candidature et que loolu noonu bu mu mos a xalaat ne ça va passer xam nga Ablaye Wade demoon nañ sax bu mu présenté wu ba conseil constitutionnel validé ko mais moom bu mu mos a xalaat ne sa candidature dina ko déposer fii ne au Sénégal parce que sénégal yi nag kenn du leen yàpp Macky Sall moomul kenn lu muy wax wax na ko constitution lu muy luñ ciy bind bind nañ ko ci amul benn droit présenté pour une troisième candidature et que loolu noonu population bi du ko nangu et moom xam na bu baax ne jour bu muy wax ne day présenté wu jour boobu lay gëj a doon président de la république moom moo ko gën a xam donc léegi euh, fu ngeen ko teg fu ngeen teg loolu boo ko waxee. mais parce que population bi moo dul mënatee nangu loolu. ñu leen di fooye di leen di nax si ay interprétation nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs première kii sept sept ans laa njëkk a def sept ans yooyu bokkul jiite naa leen de 2012 à 2000 2017 mais loolu noonu 2012 à 2019 mais loolu noonu nekkuma woon président j'ai pas fait ces sept ans. lool noonu benn seen logiquement c'est ça sonne mal à l'oreille. d'accord mais gisoon nañu tamit euh, Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne tey bokkoon na si ñi tëgg référendum boobu. mu waxoon moom itam ay yooni yoon ne Macky Sall bu ñu ko falee 2019 mooy nekk deuxième et dernier mandat euh, lu même Ismaïla Madior Fall tey moom la ñu ñëw tabb ko def ko ministre de la justice tey euh, baajo Camara mi nga xam ne ñu bari yàgg nañ ko joxar baaraamu tuuma te mu newoon cour suprême tey ñu jël ko yóbbu ko conseil constitutionnel tey est-ce que élément yooyu yëpp euh, maanaam mënuñoo njortu ne Macky xelam ci loolu la nekk naam yow sax nee nga du la ko askan wi di may waaw comme comme nu ma la ko waxee rek xam nga euh, les actes son plus éloquents que les paroles moom acte yu muy posé yëpp ça montre que moom am na volonté pour se présenter bien vrai que il l'a dit la constitution là euh, on l'a écrit sur la constitution ces hommes de brale les Omar Youm ainsi de suite ñëpp waxoon nañ ne si deuxième et troisième mandat la yem ainsi de suite mais moom acte yu muy posé exactement actuellement bon acte yu muy posé yëpp c'est pour se présenter pour une troisième candidature mais da koy def Euh, si ñemewu ko ko ñemewul ak parce que bu ko ñemewoon je pense bien bi nii déclaré na ko. parce que nous sommes à seize euh, mois des élections donc bu ko déclaré askan bi dañuy wàcc si mbedd mi wala lan nga jàpp exactement ne tey président Macky Sall taxawoon ci pale bi wala mu taxaw ci siège benn Bokk Yaakaar ne Benno Bokk Yaakaar bu dee tey def nañ ma seen candidat ci élection présidentielle mille vingt-quatre dinaa déposer sama candidature tey bu mag Sall waxoon loolu ban réaction nga jàpp ne moom la askan bi amee. du ma ci mën a développer lu bëri mais lenn mën naa la ko wax jour bu muy déclarer loolu jour boobu lay gëj a doon président Sénégal loolu moom man maa la ko wax. léegi euh, gouvernement bu bees bu mu teg gouvernement de combat euh, gouvernement de combat boobu moom et euh, d'attaque. Euh, newoon nañ ñoo ngi def ay concertation ngir wàññi dund bi wàññi location bi saafara mbënn bi euh, boobaak léegi nii est-ce que gis nga ne attaque ak combat boobu ñoom def nañ seen liggéey. ah waaw bon ils sont en train d'attaquer l'opposition ñu ngi attaquer Ousmane Sonko ñu ngi attaquer la constitution si ñu ngi attaquer lool mais pour attaquer les vrais problème des Sénégalais non gisuma ko parce que depuis boob ba léegi je pense bien que prix yi dañuy gën a yokku. dara wàññiwu ko wàññiwul instant yi bu ñu defee seen euh, gouvernement dañu ne woon dans une semaine on va faire des consertation et après on va diminuer les prix des denrées de première nécessité mais malheureusement depuis boobu ba léegi gisuñu dara barki démb rek sama benn xarit nee na à chaque fois moom dépense am euh, da doon ñëw si boutique bi dépense am soixante quinze mille la doon doon bu fayee ko day dem jox naa kii boutique bi soixante quinze mille mu jox ko lépp mais nee na weer bi bu mu demee euh, jël lu mu doon jël à chaque fois foog ne soixante quinze mille lañ koy laaj boutique bi daa génn jox ko euh, benn benn kii benn facture de cent cinquante mille francs mais nee na moom waxu ci dara dëgg kaa wax rek mu jël cent cinquante mille yi jox ko donc juste pour vous montrer que luñ fiy wax nii yëpp prix yi dañoo duble et à tous les niveaux donc ils sont la pour attaquer l'opposition attaquer Ousmane Sonko attaquer les lois et les règlements mais ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes des sénégal mais est-ce que jàpp nga euh, li fi dese Macky Sall mën naa euh, saafara jafe-jafe yi am. non pour man lu ko fi dese mooy rafetal na rafetal xam ne peut-être mën naa am bilan si leneen mais son bilan social et catastrophique prix yi peut-être moom yëgu ko mais bu duggoon ci àll bi tuuti xam ne les sénégalais ne vivent pas sénégalais yi sonn nañ sonn boo xam ne c'est autre chose mënatuñoo combler les trois repas quotidiens et c'est extrêmement difficile ce que vivent les sénégalais mais moom mënu ko yëg donc man euh, lu ma koy digal mooy lan na defar rafetal lu fi yàqu woon mu defaraat ko politique di schéma yu mu fi tegoon pour des fi lépp mu deseere ko rafetal pour que mu mun a génn par la grande porte en 2024 mais fu mu nekk nii man gëw ma ne mënatu fee mënatu fee def dara mënatu fee def dara. waaw ah, d' accord euh, Moussa Boye fan yi ñu génn dafa am benn contrat bu ñuy wax marché gré à gré euh, état bi ñoom sax nañ ko classé ci secret défense mu nekk marché boo xamante ni 45 milliards la mbirum armement ngir ay armes. waaye ñu bari dañu jàpp ne ministère de l'environnement amul sañ-sañ di jënd ay armes ministère des forces armées ñoom ñoo am sañ-sañ boobu. waaye tamit dañ ñu bari tamit njort nañu ne euh, boo xoolee euh, organe de presse bi nga xam ne ñoom ñoo def euh, enquête bi dañu wane ne sax ne surfacturation am na ci. ndax liñ ne 45 milliards gën ngaa bari diggante 16 milliards ak 20 milliards la waroon a doon nee nañu tamit ki ñu jëflanteel kooku ab trafiquant la boo xam ne tey réewam di Niger. ñoo ngi koy wër Nigéria tamit def na fa ay ndëngate yoo xam ne am na ab mandat d'arrêt même nee woon nañ nee woon nga xam ne ñoo def enquête bi nee nañu woon sax ñëw na Sénégal moom buubee moomu ba euh, général Moussa Fall daal di koy euh, daal di koy recevoir. léegi xeetu contrat yooyu gré à gré ñu gis ne li mu am Sénégal dafay bëri. no non je pense bien que lii da cee feeñ rek contrat bi dafa feeñ rek. mais am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi am te feeñaguñu lu ñu wax dëgg la ministère de l'environnement amul benn droit kon jënd ay armes parce que man euh, j'ai fait un au niveau du parc de Niokolo-Koba ànd naa ak garde forestier yi gis naa genre arme yu ñuy utiliser mais arme yu ma gis ñuy utiliser ak li nga xam ne moom lañ moom lañ euh, wax ne moom la ñuy jënd ak ay moto yu kenn xamul lool noonu ces service ne l'utilisent pas donc juste pour vous dire que réew ki tëkku Macky Sall Macky Sall bu mu fi nekkee ba léegi looloo fi am ay surfacturation ay euh, ay fac lu ne la ñuy def xam ne ay njombe la donc euh, ça dafa c'est c'est juste une goutte doo ko par rapport à ce qui se passe quoi donc euh, ça ne nous ébranle pas mais nañ xam ne yàgg-yàgg ils von rendre compte et que 16 mois moo leen fi dese képp ku laal ci cinq milliards yi di nga ko joxe jusqu'au dernier centime ek que lépp lu ci yoon wax dinañ ko appliquer à donc. Euh, euh, mais euh, Moussa Boye am na sax ñu bari ne boo xoolee li tax ñu yëkkatewaat dossier Ousmane song bi presque pour nëbbu euh, coow li nga xam ne moo am ci ci contrat boobu la. ak euh, nemmeeku tuuru Ousmane Sonko bi nga xam ne bëgg nañ ko bëgg nañ ko gàntal wala bëgg nañ ko euh, nit ñi bañ see bàyyi te xel. exactement parce que boo xoolee xalifa Sall en 2017 dafa nekkoon di def politique à Dakar mais bu mu commencé di def sa tournée nationale boobu lañ ko taqal le dossier sur euh, sur sur caisse d'avance des trucs de genre tëj ko donc loolu lañ bëggoon a def stopper Ousmane Sonko parce que gis nañ ne. Ousmane Sonko aussi et la coalition Yewwi Askan bi dañoo amoon problème dañoo amoon doole au niveau des centres urbains mais au niveau des villages Macky Sall moo ci ëppoon doole ñu gis ne le nemmeeku tour que Ousmane Sonko est en train de faire dafa def focus sur les zones rurales dafa def focus sur les villages donc ñu gis ne kii seen base affective ñu ngi commencé di ko xëcc loolu tax ñu euh, ak accélérer le dossier de Sweet Beauté pour euh, arrêter effectivement sa arrêter sa tournée son éméku-tour quoi bëgg aussi étouffer le problème des quarante cinq milliards te loolu noonu mënta nekk sa problème la bu doon si dëkk bu sérieux dinañ ci mener enquête jusqu'à ce que même le président de la république mënoon na ci démissionner ou bien ñu destituer ko ci parce que c'est quelque chose de très très très très grave d'accord jërëjëf euh, Moussa Boye yow nga bokk ci PRP euh, bu euh, président Déthié Fall ndax yéen seen parti bi PRP est-ce que parti la bu bu bu ñu structuré. oui nous sommes en train de de structurer le parti d'ailleurs euh, le resp le SN chargé de la structuration du parti maa ngi koy nuyu de passage monsieur Mbeng il est en train de faire un travail extraordinaire chaque week dina dem ci benn commune. ou bien ñaar mbala ñett structurer le parti instant je dirais que nous sommes présents dans les 557 communes du Sénégal nous sommes présent dans les 46 départements et nous sommes présent dans la diaspora parce que les images le montrent à chaque fois que président Déthié Fall dem si benn localité au niveau de la diaspora yenañ gis foule yu koy topp. mais ñi koy topp est-ce que PRP lañ bokk. mais bien sûr ils sont du PRP. mais mais mën nañoo bañ non non xam nga tey par exemple tey Déthié Fall euh, dafa am benn relation ak Ousmane Sonko am benn relation ak Khalifa Sall. tey par exemple tey Déthié Fall mënul jóge Sénégal dem bitim réew. mais localité bu mu fa dem tey ndax ndax tey boo xoolee euh, foo dem ci Sénégal. nit ñi ànd ak Ousmane Sonko ak ñi ànd ak Déthié Fall. wala ñi ànd ak Déthié Fall Ousmane Sonko xalifa Sall relation yu rafet mooy dox seen diggante ndax coalition Yewwi Askan Wi est-ce que loolu tamit dina tax Déthié Fall tey bu demee bitim réew def tournée dina dem ci benn localité boo xam ne euh, ay militant kese mën nañoo bañ a génn ndax buy militant génnee am relation ak militant Khalifa Sall ñoom te mën nañoo na ñu gungewaale ko mi militant Ousmane Sonko euh, Sonko tamit aussi mën na see mën na seerax waaw bon bon loolu loolu noonu euh, c'est une hypothèse à ne pas rejeter parce qu'en réalité Yewwi Askan bi c'est une famille c'est des gens yoo xam ne je pense bien que politique booleetu leen mais dañoo dem ba am des lien de fraternité mais le président Déthié Fall euh, sa tournée internationale bu fay dem il part su la bannière du PRP donc demul sous la bannière de Yewwi Askan Wi te buy oote day oo nit ñi pour que ñu ñëw intégrer sur sa campagne kaay bokk boo gisee les images c'est la campagne kaay bokk boo gisee lépp tu sauras que ça c'est le PRP donc man gëm naa ne quatre vingt quinze pour cent si ñi nga xam ne ñoo koy uyu si di ñëw di ko jàppale ñooy noonu ils sont du PRP. waaw mais mais est-ce que tey sànq maa naan la euh, commencé wut euh, tournée bi fii mais euh, tey gis nañu ne soo ko mënut a dem bitim réew. Déthié dem na bitim réew pour bëgg loolu lu mu wala dafa dem. pour euh, non non non non ça c'est sa stratégie stratégie politique am la. Déthié nag ku ko xam-xam ne moom clandrier bu strict lay topp lépp lu muy def day fekk mu waaj ko waajaat ko waajaat ko bind ko fes fisele ko. donc euh, calendrier moo wane ne daa war a njëkkee au niveau international Ousmane sonk mënta dem mënta génn réew mi. mais temps yi gis nañ son numéro de Bassirou Diomaye Faye dem def tournée internationale donc euh, ça ne veut pas dire que Ousmane Sonko mënta dem rek que day perte son électorat au niveau au niveau de la diaspora no et que Déthié Fall aussi ku ko xam-xam ne lépp lu muy def si gëm yàlla la koy boole du ko xamante nii day schéma ou bien di non non non il n'est pas il n'est pas sur ça lépp lu muy def da koy teg si gëm yàlla teg ko si wóolu yàlla teg ko aussi si dëgg. mais si fula ak si fayda. d' accord léegi euh, Moussa Boye yow yaa ngi milité fi nga xam ne mooy commune bu euh, Thiadiaye euh, commune bu Thiadiaye est ce que yéen PRP am ngeen benn représentativité. exactement donc ñu ngi commencé di liggéey au niveau du PRP à Thiadiaye je dirais depuis un an ñu ngi massifier le parti ñu ngi enrôler la jeunesse. d'ailleurs même je profite de l'occasion pour vous dire que samedi bii nii dinañ fa def descente nous au niveau du PRP dem seeti kilifa diine ak kilifa aada yi seeti aussi la population de Thiadiaye pour waxtaan ak ñoom ñu ñëw adhérer sur la philosophie kaay bokk du président Déthié fal donc ñu ngi fay liggéey ndànk ndànk ndànk et le moment venu les Sénégalais sauront que nu représentons quelque chose au niveau de Thiadiaye bien vrai que élection législative yi aussi on a participer avec la coalition Yewwi Askan bi am nañ aussi des résultats satisfaisants parce que ñoo jël deuxième euh, bien vrai que APR dirigé par Omar ñoo gagné mais dañoo gagné cent pour autant avoir les cinquante pour cent parce que eux quarante pour cent kese la ñu am ñun ñu topp seen ginnaaw et les serviteurs Pape Djibril Fall topp seen ginnaaw ainsi de suite ñu des topp seen ginnaaw Donc, euh, on est en train de travailler. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, les résultats von euh, voilà quoi, suivre. mais euh, xam nga tey euh, Moussa Boye euh, tey dafay am ñu bari ñoo xam ne du ñu bëgg wala du ñu comprendre tey ñuy comparer yenn leaders yi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition. yeewu askan wi te lu man de am tamit élection présidentielle da ngeen nekk ku ne day demal boppam est-ce que tey posture bi nga xamante ni tey ni ñu bari gis nañ ko ci euh, taxawu Sénégal wala euh, Pastef tey est-ce que taxawaay politique boobu poids politique boobu est-ce que dee ci faalam na ko bon euh, mënuma prétentieux à dire que nous avons le même poids politique que Pastef que Taxawu Sénégal ainsi de suite mais si lu ma xam mooy lan on est en train de travailler partout au Sénégal wax naa la ko tey en terme de volume d'activité ci parti amul benn parti bu ñu ko ëppale fii nii au Sénégal. mais Pastef mu ngi def mu ngi def ay activités mais en terme de volume je parle en terme de volume gisuma benn parti boo xamante nii mu ngi def des activités yu jege sax le volume d'activité du PRP donc on est en train de travailler de massifier. et Inch'Allah, et de faire un travail de structuration et Inch'Allah, d'ici quelques mois, quand le président Détiefal va revenir au Sénégal pour faire la tournée nationale, les Sénégalais sauront que nous étions en train de faire un travail de fourmi au Sénégal. Mhm. Euh, euh, non je ne dirais pas de numéro 2 on a juste de, un secrétariat le président Déthié Fall est le président du parti et le reste est découpé en secrétariat comme le secrétariat chargé des cadres bi nga xam ne Abdourahmane Diouf moo ko Abdourahmane Sall moo ko jiite et bon man ma bokk ci secrétariat boobu et le secrétariat chargé des jeunes ainsi de suite donc c'est juste des secrétariats qu'on a mis en place mmh. mais on a un secrétaire exécutif docteur Camara mmh. Mmh. et on peut dire que voilà il peut faire office de numéro 2 du parti. mais est-ce euh, seen parti bi du caagi ne ñuy mappé woon ci réew mi ñoom rek la réew mi réew mi ñoom rek la wala ndax am na ñoo xam ne suñu def politique. bon boo xoolee le parti nga gis ne presque ñu ci nekk ñu ci bëri ko ci waxtaanal da lay ne j'ai jamais fait la politique man maa ngi koy gis au niveau du PRP département de Mbour foofu noonu la majeure partie ñu fa nekk. mosuñoo def politique ñu ci bëri dañoo commencé politique avec le président Déthié Fall te koo ci laajte lu waral nga commencé politique avec le président de Fall leen la lay wax dama gis ci moom xam-xam bu mot sëkk dama gis ci moom gëm yàlla bu mot sëkk dama gis ci moom dëggu ak détermination ak abnégation boo xam ne gisuma ko ci keneen et je me retrouve avec sa façon de faire gis naa ci ay ñoo xam ne ay docteur lañ comme euh, le docteur euh, Brigitte mi nga xam ne moo jiite euh, le parti au niveau du au niveau de la commune de Mbour au niveau du département de Mbour excusez-moi kooku noonu elle n'a jamais fait de la politique mais elle a commencé avec le président Déthié Fall et loolu noonu bon il y en a énormément de personnes comme ça ah. bien vrai que il y beaucoup de gens qui ont quitté le Rewmi pour l'accompagner aussi parce que dañoo gis qualité yi nga xam ne moo nekk ci moom et ces qualités sont vraiment universel ko d'accord jërëjëf euh, Moussa Boye waxtu wi jeex na lan nga ciy dolli. bon lu ma ci mën a dolli mooy maa ngi wax waa Sénégal nañ xaar le président Déthié Fall nañ ko déglu nañ ko sóoraale te xam ne tout ce qu'il fait c'est pour le Sénégal mënoon naa toog këram di dund paisiblement euh, sans pour autant entrer dans cette mar à caïman qui la politique mais il le fait par devoir, il le fait pour la démocratie sénégalaise, il le fait pour les Sénégalais et il est déterminé à changer le niveau de vie des Sénégalais. donc nañ ko sóoraale nañ ko jàppale nañ ànd ak moom mais aussi nañ ko déglu ak xel pour xam exactement la dimension de l'homme la dimension du président de Fall d'accord jërëjëf. ok merci c'est jërëjëf. jërëjëf euh, Moussa Boye mbokk yi moom la ñu invité woon tey mu nekk euh, membre ci cadre yi bokk ci euh, PRP PRP di parti républicain pour le progrès diisoo ak askan wi te président Déthié Fall di seen leader moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h. maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.